bismillahi irrahmani irrahim wasala hmm. allahu ala sayidina wa nabiyina abilqasim almustafa muhammad wa ala alihi altayibin altahirin wa sahbi alhudati almayamin uh, almuminuna ixwa uh, mbokki groupe unité islamique ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ci jiital administrateur yi ak mbooleem eh, membre yi nga xamante ne ni ñoo nekk ci groupe bi di ay kilifa ak ñi ñuy déglu ci yeneen groupe yépp ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di am mbégte lool gannaaw bi nga xamante ne ni inauguré nañu grande mosquée bu am solo bi nga xam ne symbole kese la fees muy Masaalikul naan ci barke bi nga xam ne moo fa dotteeku ba xol yi ci seen jëmu bopp ak xel yi yépp booloo daje lu sori woon jege lu jege woon gën a nekk loo xamante ne lu ñu mën a jëriñoo ba nga xam ne nitu yàlla bi da ciy giseek moroomam nitu àdduna bi gise ceeg moroomam ki nga xam ne ñi nga xam ne dañoo safaanoo woon yàlla tàppale xol yi loolu tey moom mooy wane barke bi nga xamante ne moo nekk ci masaalikul jinaan jumaa ju màgg ji nga xamante ne ni réplique la boo xam ne naaw bi nga xam ne depuis le 7 juin 1963 euh, ci Touba inauguré nañu grande mosquée bu Touba tey sëtu ñooñu ñëwaat jëlaat même réplique bi ñëw def lii nga xamante ne ni moom mooy jumaa masaalikul jinaan mu nekk loo xam ne day wane ne sooba bi mooy flambeau bi nga xam ne moo nekk ci loxo yoonu murit fayul dafay xëy di continuer parce que mbiru borom bi la kenn ku nekk ci ñun bu xoolee dina xam ne euh, maam borom Tuuba xaadimul rasul radiallahu taala anhu nitu yàlla la te ku liggéeyal yàlla la ku sellal liggéey bi nga xamante ne ni moom la liggéeyam liggéeyal boromam te liggéey boobu nekkul dara lu mu ci jublu dul euh, xaarul woon am ay may wala leen waaye yàlla subhanahu wa taala moo ko ñenki wala jox ko ko mu nekk loo xamante ne ni du sax pay waaye xoymet rek la daf ko koy xoymatal parce que fay yàlla mi ngi am yowmal qiyaam loolu nag nekk loo xam ne fierté la pour mbooleem jullit ñëpp waaye mbooleem le genre humain au delà de l'islam gis ngeen ci christianisme ak yeneen diine yi nga xamante bokk ci symbole bi ci gën a rëy mooy gis ngeen sax église bi nga xam ne moo nekk Grand Dakar ñu ubbi ko pour ay jullit yoo xam ne dañoo ñëwoon julli si pour bokk ci li nga xam ne mooy barke islam boobu nga xam ne islam ascendant la islam buy jóg la islam boo xamante te mënu ko téye ñu jox ñooñu na ngeen julli ci sunu biir mu nekk exemple de convivialité de cordialité xusnul muaïcha bayna abna al islam wal masihiya mu nekk loo xam ne lu ama am solo ñu ngi ñaan yàlla xalif général bi nga xamante ne ni moo ko ubbi ak mbokkam mi muy cheikh Mouhamadul Muntaqa Basir yan na ko yàlla yokk ko wër la kanam ndaxte nitu diine la boo xam ne exemple la bu mag a boo xamante ni ñëpp dañ ko war a roy ci mbaaxam ci yaatoom bëgg diineem bëgg xam-xamam bëgg lu baax bëgg lu set ak dàq lépp loo xamante ne ni furqa la tàqale jullit ñi la te wane na ko ci jëfam sëriñ boobu nga xamante ne ni euh, léppam daf ko bëgg a jëf ci diine ci wàllu gëm yàlla ci wàllu ragal yàlla ci wàllu xam-xam ak lii nga xamante ne moom la nal muy euh, projet bu mag boobu muy université boo xam ne daf ko def nga xam ne mboolem xam-xam yi nga xam ne day dundal diine di dundal nite mu jël ko engagé ko pour mu nekk loo xamante ne ni day nekk euh, njëriñu lislaam njëriñu adduna bi yëpp rawatina Sénégal euh, loolu mu nekk lu am solo loolu nag moo ñu yóbbu tey comme niñ ko waxee woon mooy information bi mooy ne dañu nekk ci benn silsila euh, boo xam ne ci benn série euh, de discussion xiwaar boo xam ne dafa war a am ci diggante ñi tudd seen bopp euh, salafiya ak ñi nga xam ne ñoo tudde seen bopp chia mu nekk waa kër yonent ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi ci loolu nag mu nekk loo xam ne xam-xam mën a feeñ mën a génn Eh, te salafiya boobu ak chia ñu nekk doomu wullu ak sullu maanaam doomu bàjjan ak doomu nijaay parce que loolu lañuy wax eh, ñu bëgg ko sénégaliser mu nekk loo xam ne ay du ci mën génn ci diggante eh, ñaar ñoo xam ne dañuy nekk ay kal diggante doomu bàjjan ak doomu nijaay waaye xam-xam ak jàmm rek moo ci feeñ ndaxte ñun waruñu nga xamante ne ni tey ñu ñooy war a jàngale lislaam ci ñu dañu war a déglu ci ñun dañu war a yàlla di ñu wax udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawizati alxasana wa jaadilhum billati hiya ahsan yàlla ne booy woote woote booy woote jëme si sa yoonu boroom nanga ko wootee ak xeeñ ak li mën a waaraate a boo xamante ne bu rafet lay doon wa jaadilhum te del waxtaan ak ñoom billati hi ahsan ci ni mu gën a rafet xoolee bi di gis am na ñaari centralité yoo xam ne dafa am solo ci woo nit muy xikma muy maanaam wàllu sagesse yeewu xereñte ak mawisa al xasana mu nekk waraate bu rafet amul ŋàññ amul saaga amul xaste amul amul loo xamante ni wax mu ñagas la boo xam ne nit ki war na ko def bu fekkente dafay woote jëme ci boromam wa jaadilhum billati hiya ahsan gis nga na leen woo ci woo boo xamante ne ni mu gën a rafete boo xamante ne ni li ci jiitu waaye fexe ba sa bopp balaa ngaa wax ku la gis rek xemem la xemem ci li nga nekk te gis nga aay bi ñi mu ci ñuy jublu mooy mushrikuun yi ak kuffaar yi ñi nga xam ne ay bokkaalikatu yàlla lañu ak ñi nga xam ne duñu ay Euh, jullit di ay euh, yéeféer yàlla di la wax toujours ci alquran wala tastawi alxasanatu wala alsayiatu idfa billati hiya ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu mawaddatun kaannahu waliyun xamim wa ma yulaqaaha ila alladina sabaru wa ma yulaqaaha ila zu xazin azim yàlla di wax euh, aussi mu ne idfa billati hiya ahsan mu ne wala tastawi alxasanatu wala alsayiatu lu baax yiw ak lu dul yiw ak safaanu yiw mënul nekk benn idfa billati hiya ahsan buñ la defee lu bon nan ko fayee lu baax loo xamante ne ni même bu doon ki nga xam ne fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun même bu dee ki nga xam ne eh, danga dafa dox sa digganteeg moom lu ñagas wala noonoo yóg yu demee noonu boo ko fayee lu baax kooku mën na dem ka annahu waliyun hamim man na dem ba nga xam ne tey nekk sa xarit euh, ndax loolu nga ko fay mu baax loolu lu rafet comme ni ngay fayee sa xarit boo xamante ne ni bu la jege la bu sincère la ci yow mu ne loolu nag euh, ñu lebal la lu bon nga fay lu baax wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru ñu mën a muñ rek ñoo mën a am lu mel noonu wa maa yulaqaaha illa du xazin azim ki am chance bu mag a mag moom rek moo mën a am lu yow bu toll donc loolu moo waral ci eh, li nga xam ne moom la unité islamique jóge eh, mooy fexe ba nga xam ne ñi nga xam ne ñooy doomi soxna yi waaye aussi ñi nga xamante ne bu ma dugalee ci doomi soxna mooy ñu jàng alquran jàng arab ñu ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy déglu jàng tubaab wala leneen ci yeneen langue loolu ñu bëgg ci ñoom ñi jéggalu ci dog-dog boobu mooy group bi objectif bi mooy fexe ba nga xam ne mbooleem tariqa yi seen eh, eh, eh, muy tijaan murit xaadir laayeen waaye aussi mbooleem lii nga xamante ni moom mooy yeneen yoon yi nga xam ne mi ngi ci lislaam mu nekk yoon yoo xamante ne yaatu bu fekkenteen ci wàllu fiq as sunniya al fiqiya mooy xanafiya malikiya shafiya ak xanbaliya waaye ci wàllu chia jaafariya ismailiya zaydiya ak alawiya bu dee ci wàllu xawaarij surfa surfiriya ak azraqiya ak ibadiya bu dee ci suufiya yu mel ni comme ni ma ko waxee qadiriya tijaniya muridiya layeniya bu dee ci madrasatul kalaam al shia al mu'tazila al ashariya ak murje ak qadariya ak jabriya donc ñun ñëpp dañu leen woo ci groupe bi pour ñu ñëw ñu def ay discussion yoo xamante ni d'ordre doctrinaire ak doctrinal euh, muy maanaam loo xam ne ci wàllu aqaid la ngëm ak ci wàllu mazhab ak ci wàllu ilmul kalaam ci wàllu philologie kenn ku ci nekk naka la gisee al ci wàllu ahkam ci wàllu aqaid ak ci wàllu axlaaq maanaam atte yi jikko yi ak li nga xamante ne ni mooy ci wàllu xalaatin donc mu nekk loo xam ne benn bu ci nekk génnul la l'islam parce que bu ngeen dee xool li nga xamante ne mooy furuu diin euh, ak usulu diin yëpp ñun ñoo ko bokk parce que diine bi ñu bokk moom mooy al te baatu diine étymologie bi boo ci delloo mooy addunuwu mooy rapprochement wala zillu mooy lu ñu tuddee euh, zil euh, mooy lu ñu tuddee soumission awil xodo mooy nga wàcce sa bopp ci kanamu dara loolu mu nekk euh, comme ni ñu ko waxee léegi usulu diin boobu nga xamante ne ni donc diine boobu muy diine lislaam dafa séddalikoo li tuddee usulu diin ak furuu diin usulu diin moom mooy les principes fondamentaux de la religion Euh, muy li nga xam ne diine moom mooy fondement ndaxte kër gu nekk ak euh, tabax bu nekk dafay am tudde fondement balaa moom ay pilier muy arkaan donc euh, usus yooyu muy fondement yooyu moom lañ tudde usul mooy li nga xam ne moom mooy principe lu ci jiitu ci loolu nga xamante ne mooy diine mooy dafa ko ci ñaar usulu diin ak furuu diin usulu diin mooy les principes fondamentaux de la religion lu tudd lu mel ni comme al tawhid mooy monothéisme unicité de Dieu bàyyi bàyyi kennal yàlla ak al nubuwa mooy ñuy ab yonent al maad ak dellu bés penc nga gëm ko loolu mooy al usulu diin as salaasa yi nga xam ne sunu mbokki ahlu sunna wal jamaa moom la gëm waaye aussi chia teg ci al imamiya al imama awil wilaya awil adlul ilahi imama mooy limaama mooy wàllu njiit al adlul ilaahi muy la justice divine muy maanute yàlla muy parce que dañ ne bu fi yonent yi jógee wali yi ñoo leen di remplacer mu seetali ko aussi ci wàll ci juróom liñ tudde furuu diin mooy les branches euh, yi nga xamante ne mooy bànqaas yi nga xam ne ci la diine di reposé wu ci kaw garab bi muy as salaatu julli as sawmu muy woor az zakaatu joxe azaka ak alxajju koor ak wax shahadatu an la ilaha illallah bu dee sunu mbokk ahlu sunna chi a teg eh, yeneen juróom muy fukk mu nekk yoo xam ne fondamentaux bi ci jiitu alxumus moom mooy sa at boo liggéey ba mu am eh, at boo liggéey ba mu am at da koy xaaj bénéfice bi eh, jël benn juróomeel bi boo ko xaajee ci juróom benn partie bi nga jël ko jox ko waaye doomu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy ahlil bayt parce que du ñu lekk sarax du lekk euh, sarax donc ci biir loolu loolu aussi al jihad mooy xeex ci yoon yàlla ak formam yi mu am yépp ak li nga xamante mooy amr bil maaruf digle lu baax tere lu bon mu bokk ci li nga xam ne buñ doon xool ci wàllu droit moom mooy les libertés individuelles et collectives ak euh, ci li nga xam ne mooy la dignité humaine Eh, la personne ses bien ak son honneur maanaam irtuhu wa maaluhu wa damuhu comme ni ko yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam waxee mu nekk la la la le fondement même du droit positif bi nga xam ne tey moom la ñuy dund mu am également li nga xam ne moom la ñuy tuddee an nahyi anil munkar di tere lu baax maanaam digle lu baax tere lu bon al xaritoo képp koo xamante ne ni eh, jullit la ak ku mu mën a doon albaraatu mooy nga dencalu ci képp koo xamante ne ni dafa bañ lislaam bañ lislaam donc loolu boo ko de dee seet yàlla ci mu borom nii nga xamante ne ni noonu la defee ba nga xam ni nit ñi ci seen jëmmu bopp ñi ngi eh, eh, eh, xàjjali ko loolu dafa nekk loo xamante ne lu naturel ba mën a génn kenn ku nekk sa xalaat parce que yàlla moo ko buggee noonu dafa wax ni walaw shaa allahu maqtata alladina min badi min badi ma jaathum albayinatu walakin ixtalafu fa minhum man amana wa minhum man kafara walaw shaa allahu maqtatalu walakin allahu yafalu ma yurid bu neexoon sa borom kon tey kenn du xeex waaye moom moo ko bëggee noonu ñii diggam ñee dañuy weddi yàlla mooy def lu ko neex te bu ko neexoon xeex boobu du am ndaxte mooy def lu ko neex donc diversité boobu nga xamante ne moom la yàlla xëcc wane na tey malikiye bi wala chia bi wala jaafariya bi wala suufiya bi kenn ku ci nekk am na nu mu gisee moo tax mu nekk loo xamante ne ni tey nga gis divergence yi loolu dalay wan rek li mu war a indi warul nekk sax différence waaye divergence yooyu richesse la war a doon maanaam sarwa la war a doon maanaam las gombaar la war a doon Euh, chance la war a doon parce que kenn ku nekk diversité boobu kii waxee nii kii jëfe nii kii nii ngeen bokk ndey bokk bàyyi am fi ngeen jóge tott bi wax naa ko léegi mooy lislaam loolu du def lu gën leen enrichir parce que gisuma ci jullit ñi kuy julli fu dul ci kaaba gi rakk yi nga xamante ne ni moom mooy am euh, gis ngeen ko moomay même rakk yi weer wi ñuy jiite di ko julli eh, weer wi ñuy woor ñu ñëpp ko julli bokk ñuy julli fu ñuy jublu ñoo ko bokk alquran bi nga xamante ne moom la ñu yor amul keneen koo xam ne mën na génn mille quatre cent années après beneen nusxa beneen exemplaire beneen aywa alquran ni bii euh, tijaan yee ko moom wala xaadir yi wala chia yi wala ñu tudda ahlu sunna wal jana jamaa wala waa salafiya wala beneen groupe donc loolu mu nekk defi boo xamante ne ni bu am solo bu doon wane li nga xamante ne mooy waxdatul muslimin bu ngeen dee xool bi fi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jóge ci xula xulafaawul umawiya ci 661 ba 750 al xilaafatul abbasiya 750 ba 1258 al xilaafatul fatimiya 909 ba 1171 al xilaafatul murabitun ñëw ci de li nga xam ne mooy 1056 ba 1147 mongol yi ñëw. ci mille deux cent quarante jàpp mille deux cent quarante cinquante huit ak suquutu Bagdad bi Bagdad daanoo ak xarbu salibiye muy les croisés bi nga xamante ne am na ci mille quatre vingt seize li nga xamante ne ni mooy euh, euh, alxilaafatul muwaxidiwun nga xam ne tey mooy al muwaxidiwun nga xam ne ñu bari nee nañu Sénégal fii am nañu fi jóge dem xeexi pour euh, ci dugal islam ci Espagne mu tàmbalee ci mille cent trente mille deux cent soixante ba ci ay ayub yi ci mille cent soixante ñëw ba ci mille deux cent cinquante sultatu mongol ñëwaat ci mille deux cent cinquante ba ci mille trois cent trente cinq sultal mamalik yi ñëw mille deux cent ñëw cinquante ba ci mille cinq cent dix sept sultal osmaniya ñëw bu mille cinq cent dix-sept ba ci mille neuf cent vingt-quatre ci nu mu daanoo kenn ku ci nekk ci euh, groupe boobu nga xam ne nga diriger l'islam essayé nga fexe pour l'islam ñoŋ euh, islam alquran yonent bi ak ñeen ñëpp malgré ko noo ko mën a defee yàq nga moo xam defar nga waaye baydatul islaam yàlla muccal na ko ci yooyu yëpp nga xamante ne ni moom mooy péripéties yi nga xam ne moom la aw bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo bokk objectif mooy ñëngal diine euh, fexe ba nga xam ne diine boobu dafay am doole yàlla wax ñu waati wallaha wa rasulahu topp leen yàlla topp li nga xamante ne mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te teg ci mu ne yow chia bi yow murid bi yow xaadis bi yow salafiya bi yow mi nga xam ne yaay ahlu sunna wal jamaa yow yaay laayeen bi yaay cene ba cene ba yaay ki nga xam ne sa mbir yaa ngi koy jëlee ci lislaam wala tanazau fa tafshalu bu leen di xëccoo bu di waxante lu ñaaw loo xam ne dafay indi wa tazhaba rihukum seen echeck dafay taxaw euh, bu ko defee seen chance dafay évaporer wu maanaam dafay dootu leen amati chance wasbiru wasbiru ngeen muñ inna allaha ma assabirin yàlla ak ñi muñ lay àndal donc boo dee xool l'islam boobu nga xam ne moom la wax dafa am dafa nekk une réalité géopolitique géostratégique ci wàllu waaqi am muy réalité am waaye aussi l ahamiya al madiya ci matérialité am ak élément objectif de puissance muy anasirul mawdiya lil quwa nga xam ne day wane doole l'islam al wazn mu am poids économique culturel yi nga xamante ne ni moom la l'islam lamboo mu nekk loo xamante ne ni lu ama solo donc loolu moom moo tax war ñu yóbbu ci ñu nekk benn euh, di wax quulu linnaasi xusna ñuy waxante lu baax di jëflante lu baax euh, loo xamante ne day tax lislaam moo tax yonent bi aleyhi salaatu wa salaam doon wax ne umir na an nunazila annaasa manazilahum dañoo digal pour ñuy wax nit ñi di leen wàcce ci seen wàccuwaay donc ci dañ leen digal nga wàcce nit ñi seen wàccuwaay moom mooy bu doon da ngay comme al mu al mu'minu mir'atu akhihi jullit jullit mooy seetoom mooy booy wàcce sa bopp fu baax ngay xool donc noonu nga war a wàccee sa bopp waaye éviter li nga xamante ne mooy sos ak euh, wax yoo xamante ne yu amul yoo xam ne ci sa diggante sa moroom la te ngeen bokk yonent bi bokk alquran bokk xibla bokk lépp loo xamante ne ni jiw la moo tax imaam Hassan almustabah doon wax ne laysa bayna alxaqi walbatili walbatili illa salaasa euh, mu ne ila illa salaasa ila ila illa salaasata asaabi mu ne alxaqu an taqula raaytu walbatilu an taqula samiatu mu ne diggante euh, li nga xamante ne ni mooy dëgg ak neen mu ne ñett moo dox seen diggante ñetti baaroom mooy nga jël sa baaroom nga teg ko sa diggante nopp ak sa bët ci sa booru lex jëm ci kaw mu ne ndaxte alxaqu da nga naan an ta alxaqu an taqula raaytu mu ne dëgg mooy nga ne gis naa wal baatilu neen nag mooy nga ne dégg naa moo tax dañu war a góorgóorlu fexe ba nga xam ne dañu war a moytu di tuumaalante waaye aussi fexe ba nga xam ne noonu la lislaam sedd li ko tey muy benn réalité chia yi nekk fii nga xamante ne ni dañu topp imaam yi depuis après imaam yi cheikhul mufid ñëw sayid murtada sayid radi euh, ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, ànd ak ñoom nga xool ci wàllu mu'tazila ku mel ne Ghaylaan ad-Dimasqi ñëw Ma'badul Juhani ñëw Waasil ibnu Ata al-Iskandari Ibrahim ibnu Sayyar al-Jaa'iz ak ki nga xamante ne mooy Ka'bi Jamakhshari ñooñu nekk seeni borom xam-xam ak bés bés bu dee ci achaira yi qaadi abdou jabbar abdul hasan al ashari moom bi nga xam ne moo indi baatu ahlus sunna wal ci trois cent trente donc dem na ba am trois siècles ak lu topp baatu ahlus sunna wal jamaa ñu doog ko codifié ku mel comme aussi ahmad ibn hanbal qaadi abu abdou abu aboubacar al baqalani imaamul xaramayni al juwayni ghazali fakhru razi ñoo ñëpp nekk ci kàngamu ahlu euh, ñi nga xam ne mooy al ashariya suufiya ku mel ni Junayd Maaruf Karaxi Rumi Cheikh Abdul Qadir Jilani Arabi moom mi nga xam ne moo codifié euh, comme ni ko wax ci suufiya ku mel ni al Junayd Maaruf Karaxi ak euh, al Rumi Jalaluddin al Rumi al Balxi ak Cheikh Abdul Qadir Jilani Ibnu Arabi Cheikh Omar Fouti Cheikh al Qadim Seydi Haji Malick Sy ak seen mbokk yooyu yëpp nekk ci taxaw li nga xam ne mooy suufiya suufiya boobu nga xamante ne ni eh, moom mooy yar sa bakkan mooy ilmu sayrif wa suluk al irfani mu nekk loo xam ne huwa al wuqufu ala aadabi ala aadabi shariati zahiran wa batinan wa huwa ibaratun min al axlaaqi al ilahiya mooy maanaam eh, suufiyanke boobu nga xam ne mooy eh, mu ànd ak ay ay tegginam ses règles ak normes yi nga xamante ne ni sharia daf ko indi waaye aussi ci wàllu baatin daf ci am mu nekk loo xam ne mooy jikko jikko yàlla yi donc junee di waxaat ko mu ne a tasawuf wa adamu taalluqu alluqi bi xayrillah tasawuf mooy nga euh, lonku nga wekku ci loo xam ne ci yàlla ci lu dul yàlla dafa lay sori doo ci wekku ci yàlla ngay wéeru nga xamante ni ci jiitu mooy al ishq mooy maanaam ak mahabba mahabbatullah ak il fanaau fillah wa tajallillah ala qalbi al aarif xamante ne ni péripétie mooy zahid abid ak aarif maanaam al ibadata ak zuhd ak irfan yooyu la tegalo donc daal li bokk moo ëpp li nga xam ne mooy li ñu tàggale li ñu góorgóorlu ngal ñoo loolu ci loolu lay waxee groupe bi objectif mooy fexe ba nga xam ne ñu ma tudd kuréel bi mooy yi nga xam ne tudd naa leen ñëpp ñu nekk ay groupe ci suufiyanke yi ci euh, maanaam tijaan murid xaadir laayeen ci chia yi ci xawaarij yi ci salafi yi ci ahlu sunna wal kenn ku ci nekk te bokk fii am fii sa représentant dinañ la invité kenn ku nekk xamal boppam ndaxte yàlla moo ne li taarafu inna akramakum indallahi atqaakum parce que bu ngeen xamante woon mun leen nekk benn te daf ñoo pour ñu nekk benn ñun ñi nga xam ne ndaxte al mu'minuuna ixwa ñu gëm ñoom ñooy ñi nga xam te ne ni ñoom ñooy ay mbokk ñoo war a ànd loolu waral am na ay série de de de d'émission yoo xam ne dañ ko def ci daara ji nga xam ne ñëpp la ëmb dafa bëgg jullit yi nekk benn mooy du ci jiitu mooy dina am ay format yoo xam ne individuel dinañ ci woo ay nit dinañ ci woo ay nit yoo xamante ne nii Euh, individuel la doon waaye dinañ am xibaar yoo xamante ne ni de euh, débat yoo xam ne waxtaan lay doon kii wax kii wax bu ko defee ñëpp jëriñu parce que daara bi daara xam-xam la te doom la bëgg gën a renforcer donc ci loolu nag dinaa wax rek périer li nga xamante ne moo doon moom la ñu waxoon ne suñu débat bi kooku dañu koy continuer waaw parce que bi ñuy wax waxante nañu ak sunu mbokku Cheikh Yahya Touré kii ne madrasa salafia madrasa salafia la représenté kii ne madrasa ahlul bayt la représenté mu Yahya Touré sunu mbokk Cheikh Khadimou Rasoul moom madrasa salafia lay représenté donc mu nekk loo xam ne lu ama am solo la donc comme waxoon naa rek changé wuñu programme bi dégg naa mu ne moom du mën a ñëw ndax ay beaucoup de raisons yoo xam ne wax na ko ñun ñëpp dégg nañ ko waaye ñun dañu am li nga xamante ne ni mooy euh, ndogu pour def ko ak Cheikh Yahya am ndogu def ko ak Cheikh Yahya Touré euh, même question yi nga xam ne wàcce naa ko sànq ci kanam moom la ñuy posé ak pour bañ rek forcer programme bi ak ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu fii euh, ak ci bitim réew ci réew yu bari nga xam ne ñu ngi bokk ci groupe bi te doon xaar Euh, waxtaan boobu mu nekk pour ñëpp man cee jëriñu même question yi dañ ko posé Yaxya bu dee ci diggante bi sunu mbokku salafiyee yi changé nañu ñu ñëw ut kenn kooku aussi dina ci baax parce que mi ngi war a commencé à huit heures trente débat bi ci yi nga xamante ne ni moom la ñu posé woon comme question bu ko defee ñu continuer programme bi kenn ku ci ñëw indi ci parce que mbir mi du ŋàññante du saagante du xastante du waxante lu ñaaw waaye waxante lu baax la fexe ba nga xamante ne ni li yàlla wàcce ci yonent yàlla Muhammad sallam ñu man koo ñoŋal xamal ko ñëpp parce que responsabilité boobu ci ñun ñii la aju donc daal may jeexal ci di santaat ñëpp di gërëm ñëpp di ñëpp di balu àq ñëpp di wax ne débat bi dina am à huit heures trente sans avec ou sans Khadim Rassoul Dieye sunu mbokk Cheikh Yahya Touré dina ñëw waaye bu ñu sañoon sunu mbokk euh, Cheikh Adim Rasoul Dieye dina ñëw foofu lay lancé waale appel mbooleem sunu mbokk salafie yi wala muy ahlu sunna wal jamaa ñu ñëw wàcc si euh, ñu def débat yoo xamante ni dina gën a leeral yu lënt yu bari parce que sinon ñu dinañ ko def ñun ak ñi nga xamante ni ñoom pare nañu ci murid yi ci tijaan yi ci xaadir yi ci laayeen yi te dinañ ko tas ci YouTube yi parce que réseaux sociaux yi actuellement moo ëpp doole sax télévision yi ak rajo yi parce que surtout intellectuels yi ñoom ñoo ko moom mooy ñuy xalaat ak ñi nga xam ne décision yi ci seen loxo la nekk donc te bu ko defee dinañu gën a xam la réalité parce que léegi kenn mënatu ko nëbb buñ ko waxul Sénégal it bu bitum Sénégal kenn contrôlul benn réseau euh, social donc ñëpp dinañ mën a comprendre lu bari li nga xam ne mooy dëgg ba nga xam ne ki doon jiiñaate ki doon waxaate ki doon xastaate dinañ jëm ba xam ne ah nekk kii li mu doon wax du noonu te bu ñu xasee ba xam ne nit ki du wax katu dëgg rek loolu mën na ko yàqal lu bari ci dundam ak ci léppam wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu